tabba tabbat ci langue arab mën nañ cee am euh, xusraan comme ni ko nañ ji waxe perte mën nañ ci am ak alaku mën nañ cee am ak néew doole doofu mën nañ ci am aussi euh, yiw boo xam ne bi bu ñu dagg la euh, su sunu borom waxee subhanahu wa na tabbat yada abi lahab tabbat yada abi lahab nan nañ mën a firee aaya boobu wax nañ li xam ne bokk na ci maana tabbat ñu ñëw ci yadd yadd ci lugal arabiya bëri na ay maana yadd danañ ko wax jublu ci kàttan qudra alquran mi ngi wax ne wazkur Euh, afwan alquran mi ngi wax ne wassamaa banaynaaha bi aydin wa inna la muusiun kon ayd foofu day tegtale wax quwa doole yàdd foofu mi ngi tegtale doole nga ñëw ci alquran di waxaat ne wazkur ibadana ibrahima wa isxaq wa yaquba ul aydi wal absaar al aydi yadd foofu mi ngi firi al ataa joxe joxe gu gu bëri di joxe lu bari al ataa ul waafir nga ñëw ci alquran yàlla di wax na tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir bi yadi kon yadd foofu dana firi as wal istila mooy méngoo ak coiffé lépp daal kon yadd dina firi loolu yoddatim yàlla day wax ci alquran ne wa jaalna min bayna aydihim sadda wa min xalfihim sadda min bayna aydihim foofu noonu gis ne kon yedd dana firi sa kanam kon su fekkee ne dañu ñëw gis na sunu borom subhanahu wa am na ay misaal yoo xam ne misaal na ko yàq sat yi nga xam ne dañoo oh, nekk ñoo xam ne ñuy tooñkat la ci biir alquran danay jëfandikoo euh, fi'lu mooy jëf danay jëfandikoo euh, sifa melokaan melokaan yi nag mën na wuute am na melokaan bu yem ak bu foor su fekkee ne yàlla dafay wax ak ñi nga xam ne euh, ay yàqkat lañ comme alladina yufsiduna mu jëfandikoo fi'l bi yafsud ñi nga xam ne dafay yàq yàqam mu mën naa yàq nii waaye bala moo yàqaat mën na yàgg mu yàq defar fële yàq fii am na tim al mufsidun laa la yuhibbul mufsidin kon euh, sunu borom subhanahu wa dana jëfandikoo melokaan bi nga xam ne moom dafa bëri lu muy def loolu day yàq rek yàq fii yàq fala yàq fala waaye nag mën naa yàq ay yàq gi amu ci benn intérêt day yàq rek ngir yàq léegi nag am na nag ñoo xam ne kii nag moo raw ñooñu ñëpp koo xam ne kii melokaanam moo raw ñooñu ñëpp cig yàq mooy ki nga xam ne moom léppam yàq la xalaatam yàq la jëfam yàq la lépp lu muy dox yàq la te du yàq yàq boo xam ne mën nañ koo réparé waat wala mën nañ koo defaraat lu mu yàq rek nga ne kaw def xam nga yas sud kooku mën na yàq bala moo yàqaat du yàq mu yàgg wala mu yàq fii defar fële wala mu yàqoon defaraat mufsid man ne yàq euh, di yàq di yàq mais li ñu yàq mën nañoo topp ci gannaaw di ko defaraat wala boog mu yàq ba si yàgg mu bàyyi toogan ab diir mu yàqaat te yàq bi sax mën na ko yàq mais sans mu am ci benn intérêt te li muy yàq mën nañ koo réparé waat sax moom mu dellu gannaaw defaraat waaye ki nga xam ne moom dafay yàqu toujours xalaatam lépp ak liggéeyam lépp mooy yàq te lu mu yàq kenn dootu ko mën a réparer mu ngi mel ni ni safara di yàqee safara boo ko taalee ci matt ni def matt ma def ko dóom kenn mënu ko réparer noonu lay yàqee mais yàq bi mu yàq yépp dafa am lu muy wut ci gannaaw waaw dafay yàq pour am lu mu gañe ci la muy yàq kooku wasfoom melokaanam moom lañ tuddee abu lahab abu lahab abu lahab xam nga ab buñ ko waxee toujours euh, baat bi nga xam ne mooy ba ba bu ànd ak benn xar bu ko jiit mu ngi mel ni nga naa ab rab tab en général paat boobu day day inversé mbir day fekk mbir bu nekkoon lii mu changé ko def ko beneen mbir ab ab papa njaboot gi xiif nañ ab bi ñëw leel leen njaboot gi eh, nu mu dem kii nañ eh, rafle nañ abb bi ñëw eh, sàng leen njaboot gi ñu ngi réer abb bi ñëw gindi leen dafa mel ni day day day li nga xam ne moo fi nekk la même chose rab day ñëw ku sonn ñëw toppatoo ku am jafe-jafe mu defal ko yiw koo xam ne kii teguwul ci yoon mu ñëw teg ko ci yoon ka annahu mi ngi mel ni murabbi bi yarkat min rabb gis koo xam dafa fekk ku dëng mu ñëw jubbanti ko ah koo xam ne ki day moy mu ñëw jindi ko noonu lay demee tabba ba it dafa mel ni ne noonu lay def dafa fekk loo xam ne ni aw yiw la moom mu ñëw def leneen mbir mi changé ko def ko loo xam ne lii du yow comme nga ne tabbat yada abi lahab mën nga wax ne yiw lépp li nga xam ne abu lahab mi ngi koy joxe dara ci yiw amu ci xam nga yada yadd dana fii ak joxe bu bëri xam nga yàqkat bu bëri daanaka li muy li muy li muy financé li muy financé dafay bëri pour yàq joxe boobu mu muy joxe bu bari boobu yépp nag maqtuul xayri la xayra fiha donc tabbat yada aw yiw nekkut ci lépp loo xam ne lii abu lahab da koy joxe ci li muy def benn yiw amu ci wala boog nga ne tabbat yada abi lahab xam nga yadd aussi dana firi qudra kattan nga ne ko tabbat yada abi lahab nga ne doya dina doya dina kattanu abu lahab mii ci li muy def abu mooy kan mooy ki nga xam ne lu bon rek lay def yàqkat la kon ab buñ ko waxee moo xam ne day renversé Euh, dara euh, yóbbu ko ci leneen comme ni ñu ko waxoon ci abb euh, ci tabba ci rabb ak leneen kon abu lahab ki nga xam ne mooy borom kattan bi renversé yu baax yi du ko yóbbu ci lu bon di ko def na comme ni safara di def matt ah kooku lépp loo xam ne li mu koy joxe dara ci yu baax nekku ci lépp loo xam ne lii timu aussi mi ngi koy def ci kàttan xamal ne kàttan gu doy di la goo xam ne gi fa muy mujjee daf koy alak daf koy toroxal kon tabbat ñàkk naw yiw ñàkk naw yiw ci li nga xam ne euh, mi ngi jógee ci li abu lahab di joxe abu lahab nag bu ko jàppee nit danga ko jàppee melukaan kuy def def jëf ju bon te li muy def nekk loo xam ne li yàq mm, bu métti la goo xam ne gi dara du ci euh, du ci baaxaat lépp yàq la kon wa tabba am moom ci boppam sax daray lu baax du ko am wala boog ñu dagg la ci aw yiw walla moom wa tabba ku doyadi la ku ku ñu toroxal la moom mi nga xam ne mooy def jëf ji maa agna anhu maaluhu wa ma kasab li muy jëf lu mu ci bëgg pour am koom alxina mooy koo xam ne kii dafay doylu ci li ma am day am day am lu ko doy ba day ba du soxlaak nit ñi alxina kas bu buñ ko amee mooy li nga am mu jëriñ la te boo amoon xaalis ba pare jël xaalis bu war see jëriñu xaalis bopp la kaat kooku lam takk sib jëriñu woo ci bul la benn njëriñ kooku kas ba amul ci jël nga tax ñam di ko lekk lekk nga koo pare waaye ñam bi indi la fitna ndeke poson nga ko yow mu indi la lor ba tey amuloo ci kas bu ndax ñam bi ah la lor na la kon kas bu toujours mooy loo xam ne di ah, daf lay jariñ moo tax soo ñëwee ci alquran yàlla dafay wax naan kullu nafsin bima kasabat rahina kon nafs bu nekk li nga xam ne fàgg fàddu na ko na ko te jëriñ ko la waaye lu la jëriñut kooku du kasab wala boog wala nga wali tujza kullu nafsin bima kasabat kon nekkut bima بما بما بماله او بما له او بما اغنى عليه déedéet bima kasabat mooy xam ne am na koo pare mu jëriñ ko dégg nga kon euh, euh, laha ma kasabat wa alayha ma kasabat loo xam ne li jëriñoo nga ko ba yëg na jëriñoo nga ko kooku mooy kasb xëy naa nag mën ngaa am lu not gàññ mais du la jëriñ léegi nag tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maaluhu wa ma kasab exemple bu ndaw jamono ji ñu ci jamonoy corona coronavirus nga gis ñoo xam ne ji ci àdduna bi li leen yitteel lenn la rek mooy defar ay virus xam nga kooku yàqkat bu mel noonu moom kenn du ko tuddee mufsid kenn du ko tuddee allazi yufsid kooku wasfoom ëpp na loolu koo xam ne kii mi ngi alag ay ay ay alaaf nit ci bakkan di yàq ay milliardaat milliardaat ci économie doomu aadama di xiifal ay nit di tumurankeel ay nit di euh, sufiiral ay nit nit kuy def loolu ngir lan ngir defar ay médicament wala ay vaccin yoo xam ne yi daf ko bëgg jaay wane na mooy faj virus boobu muy defar ngir am ci alal ju bëree bëree bëree bëri kooku mooy Abu Lahab am na réew mu nekk am na dëkk bu nekk mën na am sax ci famille bu nekk mën na am ci société bu nekk mën na am ci gox bu nekk yàqkat boo xam ne bu yàqoo rek bu yàqee rek dana kii moom geex na am na koo xam ne kii mën na nekk ci mbokk yàq fa loo xam ne lii mbokk ko yépp ay tasaaroo kooku Abu Lahab la xam ne kenn dootu wax ak sa morom kenn dootu juboot ak sa morom ku nekk yaa ngi ñaaw jot sa moroom ku nekk yaa ngi euh, euh, wax lu ñaaw sa moroom kooku Abu Lahab la ndax yàq na loo xam ne kenn mënu koo defaraat ki nga xam dafay defar virus virus boo xam ne bii dafay lor doomu aadama yi donc kon kooku li muy yàq mu ngi mel ni li safara yàq ndax li mu yàq kenn mënu ko réparé léegi lu mu si jublu nag alxinaa yàlla na ko maa agna anhu maalu alal jooju nga ciy am bi mu ciy wut alal jooju nga xam moom nga ciy wut mu bëri maa agna anhu du tax nga doylu aleykum alal jooju du tax nga doylu ndax heure boo ko defee ci la sax ci ngay gën a soxlawaat ne naa defaraat beneen gën a yokkuwaat kon doo doylu mukk kon maa agna ma maaluhu alal ji nga ci am du loo doy mukk tout le temps yaa ngi sàkku muy gën a bëri ngay defaraat yeneen virus day defaraat yeneen médicament defaraat yeneen eh, yeneen vaccin pour milliards yi gën a bari doo doyal mukk waaye wa maa kasab te li nga am li muy bëri bëri bëri dara du la ci jëriñ dara du la ci jëriñ kon mbokk yi kooku mooy Abu Lahab koo xam ne kii day yàq yàq boo xam ne bii amul réparé yàq boo xam ne day faagaagal te bu yàqoo ba pare jàpp na mi ngi defar leneen loo xam ne dana ci am alal ju bari lu alal ji bari bari bari bari du tax mu doylu day gën a yàqaat alal ji tim lu mu bari bari bari lu tax ma jariñ ko kon Abu Lahab moomu li muy joxe noonu yooyu yëpp dara yiw amu ci te ku di la koo xam ne kii alaku ak musiba mooy ak mujjam kon insha allahu ba subaa jàmm ñu ñëw wax leen borom jikko ju abu lahab fan lay mujjee asalaamaaleykum wa bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كنت درس bi passé ñëwoon nañ ci commencement saaru Mossad waxoon nañ ci benn melokaan bu ci nekk melokaan bu bono muy melokaanu yàqkat boo xam ne bi moom dépassé na ci yàq di jëf yàq jamono di bàyyi jamono dépassé na ci yàq nekk koo xam ne kii ab yàqkat la waaye dafa egg ci yàq foo xam ne fii dafa kure nit ci yàq di yàq yàq goo xam ne gii kenn mënu ko réparé ba tax ñu tuddee ka aba lahab loolu melokaan la ba tax na tur bi kiñ ko jox walla boog melokaan bi kiñ ko jox ci firikat yi kooku turam mu ngi tudd Abdul Uzza Abdul Uzza boobu moom lañ jox melokaan bi te tim yeyoo na ko ndax yàqkat la boo xam ne bi li mu yàq ci lislaam li mu yàq ci mbokku euh, li mu yàq ci ay néew di doole lim leen toroxal ak lim leen sonal kenn xamut na mu toll mu Abdul Uzza mi yàq na ba xiir ak njabootam sax ci yàq kon kooku dafa chronique ci yàq bëgg yàq te mën a yàq kooku nag lañ jox melokaan bi képp ku mel ni moom ba ilaa yawmi diin Abdul Wazza bii nag ñu jox yàq melokaan bi yeyoon na ko waaye melokaan bi képp ku mel ni moom ak jamono joo mënti nekk rek mën nga doon Aba Lahab nag ku fa egg ci melokaan dafa am yooy boole ndax da am kàttan ah, bu ko defee ñu ñëw ci sa yatlaa naaran daata lahab wa imraatuhu xammalat alxatab fii jiidiha xablum min masad léegi ñoom dañoo wax ne imraa bi soxna abu lahab la waaye dinañ leeral lan mooy imraa ba xool ni ndax lii day delluwaat ci nekk soxnaam abu lahab wala boog day nekk leneen parce que gis nañ kat abu lahab bi ñu koy sanctionné ci jëfam ju bon ah dañ koo sanctionné moom kese rek waaye boolewuñ ko keneen di ko sanctionné yaakaar naa na su fekkoon ne mook soxnaam ñoo bokk di def jëf ju bon bu ñuy sanctionné ñoom ñaar la boole sanctionné wax sa yas la yaa naaran zaata lahab waaye waxuñ loolu dañ ne rek sa yas la moom kese naaran zaata lahab kon nag imraa bi kon lan la fiy placé léegi nañ xam imraa na ko la alquran traité imraa ak nu mu ko tàkkalee diggante ñaari imraa yi ci biir alquran imraa buñ bindee taabul maftuha ak buñ bindee taabul marbuta ak lan mooy différence entre imraa ak zawja imraa ci alquran bindee nañ ko ñaari façon bind bii dañoo ubbi taabi bii dañoo tëj taabi léegi bi nga xam ne dañoo ubbi taa bi foo ko fekk rek ndaw suñu xam la lu ci ëpp ndaw suñu xam la ndax lu ci ëpp dañ koy lënkaleeg ki nga xam ne mooy borom këram bari na place yi mu ñëw yaakaar naa ne juróom-ñaari place moo ci gën a feeñ mooy fi yàlla waxee subhanahu wa na id qalat imraatu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiu alim imraatu imran ku ñu xam la ndax soxna si imran la kon taa bi maftuux la daraba allahu masalan lilladina kafaru imraata nuuxin wa imraata luut kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayn kon imraa nuux ak imraatu luut ñoom ñaari ñëpp taa un maftuuxa la xam nañ leen mu leen lañ tëleeg seen borom kër wa daraba allahu masalan lilladina amanu imraata firaun id qalat rabbi ibni li indaka baytan fi ljanna wa najjini min firauna wa amilihi wa najjini min alqawmi alzalimin kon imraa foofu aussi taa un maftuuxa la xam nañ ban soxna la ñu ko lëkkaleeg borom këram wa qalat niswatun fi lmadinatu imraatu alaziz kon imraa boobu aussi taaul maftuuxa la ñu ko lëkkaleeg borom këram jabaru buur bi qalat imraatu alaziz alana xasxasa alxaqu ana rawadtuhu an nafsi kon imra aussi foofu moom it taaul maftuuxa la ñu ko lëkkaleeg borom këram muy buur bi kon imra ay yi nga xam ne dañ koo bindee nii yépp ñu xam lañ ay maarifa la nga ñëw ci imra bi nga xam ne dañ koo nakiraal nga xam ne buñ ko waxee lu ci ëpp duñu xam kan la ndax buñ ko lëkkaleeg boroom këram mën na doon n'importe qui rek bokk na ci wa in imraatun xaafat min baaliha nusuusan aw irada imraa boobu ban imraa la moo tax dañ koo bindee taaun marbuta wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a imra'a boobu ban imra'a la taaun euh, marbuta lañ ko defee ndax mën na doon ku ne euh, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi ban imra'a la taaun marbuta la aussi mën na doon imra'a bu mu doon kon loolu mooy tàqale diggante ñaari imra yi ci seen bind bii bu ñu xam la bii bu ñu xamut la léegi nga ñëw nag ci différence entre imraa ak zawja ci alquran alquran fépp fu mu am waxee imraa rek ci alquran xamal ne am na benn xalal bu ci am benn problème benn jafe-jafe bu am ci diggante ndaw si ak kim ko séq problème bi mën naa am ci côté diine daanaka du ñu du ñu bokk du ñu méngoo daal du ñu méngoo ay biir dana am lu leen xaw di xaw di e, jaxase wala mu tàqale leen ba duñ mën a jëf def walla boog am loo xam ne day jeexantal ci ñoom ñaar benn mu nekk ci côté diine bañ a bokk diine wala mu nekk ci côté euh, social euh, ndaw si am jafe-jafe benn wala boog mu nekk koo xam ne kii bon jëkkër ji aussi euh, nekkutu fa nekkutut ak moom nekkutut ak moom wala boog mu nekk koo xam ne kii neexawul ak boroom kër gi kooku en général moom la ñuy wax imraa moo tax euh, su fekkee ne da ngaa nekk sa soxna euh, ngeen nekk ci condition yu normal bul wax haadihi imraati del wax haadihi zawjati moo gën a yellu ñu ko alquran wasfoo boo xoolee euh, gis nga imraata nooxin wa imraata luut gis nga foofu problème bi Euh, defuñ mënuñoo def imraato noox mënutoon a def ak noox ba tax na daawul jàppale noox mais noonu noox la daan jàppale imraato loo la même chose kon koo dëppawul doo bokk ak moom di di jëflante moom wala di jàppalante ak moom imraato firawna gis nga ko moom it moom it ci côté diine def tag dara ak firawna donte ay maslaa moo fay nekk waaye buy jàppale eh, ñeneen ñi lay jàppale nga gis imraatu imran moom liy jafe-jafe mooy moom doo nga nekk ndax jëkkëram faatu na ñu daal di tudd imraa boobu mooy xalalam mooy jafe-jafe nga gis uh, Zakariya wa kaanat imraati aaqira imraa aaqir moom it xalal bi jafe-jafe bi mooy jabar ji mënul am doom ko defee dafay découragé ci moom bu ñu uh, ba bëri lu ñuy nekk wala lu ñuy jëflante waaye ba nga xamee ne dem na ba nga xam ne yàlla defar na mbiru jabar ji ba mbir bi baax yàlla euh, Zakaria ñaanee yàlla nangul ko ñaanam daal di koy bégalee benn xale Yaxya lamma bushira bi Yaxya lan la yàlla wax wa aslaxna lahu zawjahu wa xusna imraatuhu la ndax mbir mi léegi baax na aslaxna lahu zawjahu kon léegi nag kon yàlla ba mu ko mayee doom léegi nag mën naa am doom nag ànd gi nag ratax baax jëflante gi nekk ji dendee gi yépp mën a normal boobu mu daal nekk zawja nekkutut imraa ndax xalal bi dañ na kon fépp foo xam ne ci alxuraan gis na boo gisee na xalal am na rek imraa lay doon gis nga même Ibrahima ba nga xamee na malaaka yi ñëw nag eh, eh, seet ci ko bëggoon a toroxal ji alaga yi waa nitu loot yi gis nga waaw ñoo ngi jégalu daf ñoo rëcc waaw kon li ñuy leeralaat foofu rek moo di ne kon liñ doon eh, ñu eggale lii rek xam naa ne audio di ne kon noonu la la yàlla di traité lu ci ëpp ci alxuraan liñ seetlu mooy daanaka imra fu ñu ko waxee rek day am xalal erreur bu ci nekk benn mu doon erreur diine ñu bañ a bokk diine nga defee nag mën a jëflante ku nekk di liggéeyal sa côté wala bokk ñu am jafe-jafe social soxna si télé du mën a am doomu a nanga mu am gêne bu dox seen diggante wala boog mu nekk soxna soo xam ne si bu am këram faatu na nekkatu fa teew ko imraa ndax euh, jafe-jafe am na fa waaw kon yooyu bu amee Euh, imra alay nañ koy tuddee fekkee ne nag lépp baax na amul benn problème amut benn xalal amul boobaa day doon zawja lu gën a feeñ ci li ñu gis waaye nag ñu ñëw nag fii nag su fekkee na nag imra bii ñu wax nii dañ na soxna si abu lahab la bëgg jël abu lahab def ko benn nit waaye ñun defuñ ko nit ñun dañ koo def benn melokaan boo xam ne bii nit ku nekk mën na ko am léegi su fekkee ne soxna si dañ koo jël imraa yi dañ koo jël ne soxna si abu lahab la te ñu gis ne ñoom ñaar ñoo bokk diine ñoom ñaar amuñ problème bu diine bokk ndax ñoom ñaar ñëpp ay mushrik lañ ay yéefar lañ beneen bi ñoom ñaar amuñ problème mu jafe-jafe am doom ndax ño kii jabar ji mu ngi doon am doom ñoom ñaar ñi ngi bokkoon di dund kon amuñ jafe-jafe euh, problème boobu kon buñ jëfandikoo imraa te ñoom amuñ benn problème kon normalement li ñu gis sa alxuraan ba seetlu ko kon foofu kon zawjatuhu la waroon a jëfandikoo soxnaam ndax seen seen seen lépp dëppoo na gis nañu jëfandikoo fa imraa kon imraa yi ndax day tegtale soxna si nit ku ñuy wax abu lahab wala boog dafa am leneen lu muy tegtale nañu bàyyi loolu ba subaak jàmm ndax luxal arabiya am na lu muy tekkee imraa leneen loo xam ne lii bokkut soxna bu ko defee ci loolu nag ci la ñuy duggee xam imraa bi lan mooy fonction ci biir saar wi ñu ngi nuy ñëpp di leen ziyaare asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala ashraf almursalin sayidina muhammad wa ala alihi altayibiin altahirin wa sahabati alkiram mbokk yi xam naa ne ñu ngi tolloon rek ci suratul masad di tabbat yadaa abi lahabin wa tabb ma agna anhu maaluhu wa ma kasab wa yasla naaran zaata lahab ñu waxoon ne dafa am jëmm ju ñuy sunu boroom di melal nag jëmm joo xam ne ji euh, mufsid la waaye mufsid la boo xam ne yàqkat la boo xam ne bi dafa kure nit ci yàq boobu am beneen melokaan buñ ko tuddee muy abu lahab aba nag nekk jëmm joo xam ne ji eh, yàq ak alake rek loolu moom mooy jëfam loolu nag da koy jëf ngir defar loo xam ne day yàq ngir mën cee gañe alal ju bari alal jooju lu mu bari bari du tax mu doyal da koy xiir ci gën a mën a yàq ngir gën a mën a am alal waaye lu bari bari tim alal ju du doon alal ju koy jariñ ndax bi ci bànneexu alal jooju nag maam ak yu bon yooyu muy def ngir di yàq ak di alak nit ñi di leen tooñ loolu mooy mujj walbatikuwaat ci moom faagaagal ko comme ni nga xam ne noonu la safara di faagaale faagaagale matt ba lakk ko ba mu jeex tàkk kon nee woon sa yasla dina alaku dina lakk dina yàqu dina paralysé li koy yàq di ko ak di ko alak mooy lan naaran yàqkat boo xam ne bii ni safara di yàqee noonu lay yàqee xam ne dalay faagagal ba nga jeex tàkk naar boobu nag zaata lahab safara boo xam ne dafa am tàkk tàkkal bu foor ni muy lakkee di yàqe di faagaagal moom it li koy faagaagal di ko alak di ko jeexal noonu lay mel ñu ñëwoon ci imraatuhu leeral lan mooy nga xam ne mooy imraa ci ni ko alxuraan tërale ñu waxoon ne ci alxuraan dañuy seetlu na imraa fu mu ko waxee rek daanaka mooy ñu xam ne ñi dañoo am jafe-jafe ci seenu nekk moo xam ci côté diine la moo xam ci côté euh, ante la moo xam ci côté social la moo xam ci côté euh, ñàkk nekk la boobaa euh, dañuy wax baatu imra la yi jëfandikoo bi ci ëpp léegi ñu gis na fii nii wa amraatuhu su fekkee ne dañ koo jël jox ko ab jigéen bu ñu xam comme ñoom li ñu wax ne ummu jamil la arwa su fekkee na moom la xam ne moo nekkoon jabaru abdul uzza abdul uzza moom moom lañ melale ne mooy moom mooy abu lahab te yeyoo na ko nag ndax yàq jum daan yàq ku yàq lu toll noonu ak lu mel noonu wasfu bi ngay mën a am melokaan bi léegi nag suñu waxee ne kon kii soxnaam la imraatuhu ba pare na daf ko doon dimbale di ko jàppale ci li mu doon def ndax da daan jël ay mbalit ak ay salteg yooyu di ko teg ci kër yoonu yoonu kër yu yonent Euh, bu boobaa day mel ni ñoom ñaar dañoo déggoo te alquran ni muy waxee imraa day wane ne ñaari ñu bokk nekk couple ñu du déggoo lañ ñoo xam ne ñii daanaka duñ mën a def lu ci ëpp kon dañuy jàpp ne imraa fii nii mën na bañ doon jëmm yoo xam ne si ndaw si jigéen la suy jàppale jëkkëram lu tax gis nañ ne ummu jamil ci jigéen ñi nga xam ne jigéen ñi gënoon a taaru la bokkoon ci Quraysh ji gis nañ ne jigéen la boo xam ne bi jigéen bu mënoon a woy la bu amoon caractère ci jaahiliya gis nañ ne jigéen la boo xam ne bi jigéen bu riisoon la bu amoon alal yaakaar naa ne sax ñi gëm ne moom la ñu ngi koy wasful ne eh, eh, eh, or yim daan takk ci baatam moom lañ ko changer mu doon buum goo xam ne bii moom lañ koy yeewee safara am nañu wax loolu ci mufassiroon yi kon loolu day wane na kon moom borom àll la woon ba xam ne daa amoon ay ngalama ki wurus ni ki noonu noonu la amee woon ay xadama xam ne ñi ay jigéen la yoo xam ne dañ ko daan jàppale di ko dimbale kon kooku yaakaar naa ne ku am loolu soo bëggee lor yonent bi di jël ay mbalit ak ay salte ki matt di ko yóbbu ci yoonu këram danga ko jombal sa bopp ndax sa dignité sa alal sa taar sa ba nga tax danga ko jombal sa bopp ba tax na même boo koy def say liggéeykat ngay jël say jaam yu jigéen ñu dem defal la loolu kon foofu dañ ciy gisee ne kon euh, wam ra atuhu am atuhu mën na bañ doon jigéen boo xam ne bii dafa nekkoon soxna ci benn góor waaw su fekkee ne bañ dañ loolu kon nag lan la ñuy indi pour teg ko ne kon imraatuhu moom la war a doon kon nañ war a teg ne imraatuhu moom la war a doon nañ delluwaat ci lan arab imraa ah, su fekkee dañ koo wax ci arab tuddee na ko ne soxna la jabar la lan lañ xam ci jabar mooy koo xam ne kii daf lay dalal li taskunu ilayha sakan ñu koy xam ne kii jabar dafay dalal jëkkër li xam ci jabar tim mooy koo xam ne kii ndab lay doon ndab ndab loo xam ne lii jëkkëram ci moom lay sotti léppam maddiyan wa maanawiyan alalam ci soxna si la jëm kàttanam ci soxlu soxna si la jëm même bu amee li muy wax li muy diisoog li muy kii soxna si ci la jëm kon mooy ndabu boroom këram kon imraa sakanun wa wi'aun kon ndab la boo xam ne bi dafay dalal kon buñ demee ci beneen côté bi leen jàpp na imraa fii nii dafa nekk place boo xam ne bi comme ndab la mais nañ ko yaatal def ko ko mu nekk laboratoire boo xam ne bi ci la defkatu lu ñaaw bi muy Abu Lahab mbiram yépp ci laboratoire boobu la koy dugal yu bon yi muy def yépp foofu la koy defee yu bon yi muy def yépp foofu la kaa dugal ñu jox la exemple na waa ji ku bon la yu bon rek lay def ngir jéem ci am alal léegi lu muy def dafa ubbi benn laboratoire bu mag muy wi'a bi wi'a boobu mu lañ tuddee imraa léegi bu duggee ci biir laboratoire boobu nag am na fa sakkan am na fa dal ndax li muy def foofu lay am sécurité pour def ko kon imraa wiaun ndab la boo xam ne bi laboratoire la boo xam ne bi bu fa duggee dina am sakkan ndax dana am sécurité pour def li mu bëgg a def ceeg mbon foofu nag lay liggéeyee ay virusam yi nga xam ne moom lay yàqee foofu lay liggéeyee ay bombam yi nga xam ne moom lay jaay réew yu mag yi nga xam ne daf leen koy jaay pour ñu koy xeexee di alak nit ñi foofu lay liggéeyee foofu lay liggéeyee yu bon yu ne ñuy xeexeeg ah fetal yu bon yéeg bomb yu bon yeeg virus yi nga xam ne day day day day alak nit ñi fa lay liggéey yooyu yëpp fa lay liggéeyee tamit aussi antivirus yi nga xam ne moom lay jaay su defaree virus encore antivirus yi moom lay jaay pour ñu dindee ko virus bi mu def ndax mu am alal bomb yeeg chimie yeeg yu ñuy defar noonu aussi moom lay jaay pour mën cee am alal kon laboratoire boobu noonu muy wian bi fa lay defee yooyu yëpp kon wamraatuhu laboratoire am bi nga xam ne fa lay defee yu bonam yooyu laboratoire boobu noonu xammaalatal xatab moo yenu mbooleem yu bonam yooyu muy defar alxatab buñ ko waxee mooy loo xam ne li euh, bu tàkkee rek day faagaagal kon loolu muy defar yooyu yëpp dara baaxu ci dañ koy misaalee comme xatab boo xam ne bi bu nag ba fret daanaka lépp lay jeexal mu jeex tàkk kon wamraatuhu laboratoire boobu noonu xammaalatal xatab bi mooy yenu moo moo ci moom la sotteeku lan euh, mattam moomu mooy euh, yooyu muy defar virus yeeg bomb yeeg antivirus yooyu yëpp yooyu mooy xatab bi nga xam ne ñoo nekk ci biir laboratoire am léegi amraatuhu xam nga waxuñ imraatuhu xammaalatu xam nga bu noo xam amraatu imraatuhu xammaalatu day mel ni ndaw si moom moo yenu xamaalatu ndax euh, euh, masque dàmb bi ñu bi moom lañ maas bi day mel ni kii moo def mbir mi waaye dañu wax ne moom raatu xamaala xamaala kon imraa bi nekkul na moom moo yenu mbir mi mais dañ koo yen mbir mi yaani dafa mel ni abu lahab xamalahu alxatab moom moo ko yen bagage yi moo ko yen virus yi moo ko yen euh, bomb yi kon wamraatuhu place am boobu laboratoire am boobu xam la dañ koo yenn te moo ko yenn Abu Lahab lan la ko yem alxatab virus yeeg bomb yeeg nekk foofu noonu yi muy defar pour ko di ko yàqee àdduna bi fii jiidiha nekk na ci biir euh, bomb yooyu muy defar virus yooyu muy defar hmm? nekk na ci am euh, bu ci nekk am na dox gi mooy euh, fi nga xam ne fi la affaire yi déclenché ndax dox ci doomu aadama mooy loo xam ne lii daanaka boo ko fa jëlee dootu arab dootu dundati donc nag mooy fi nga xam ne ni ni bu déclenché woo rek di yàq yàq kon fii ci di xaar ci biir euh, bomb yooyu muy defar ak virus yu muy defar am na ci place yoo xam ne yi moom mooy place nga xam ne euh, mooy liy déclenché pour faagaagal mooy jiit boobu jiit fii jiidihaa hablun min masad léegi nag ci fi nga xam ne fi bi di yi pour mën a yàq am na hablun buum boo xam ne bi min masadin buum boo xam ne bi dañ ko fas fas bu dëgër mu am matière boo xam ne bi matière boo xam ne dafa gaaw a tàkk la lu ko laal rek luy tàkk taal rek da koy taal bu ko dafa dem kon dafa mel ne kon bu defaree bomb bi ci catu bomb bi da koy defaral lu mel ni saañ boo xam ne moo tëj poson bi ñu tuddee loolu jiit saañ boobu nag am na benn Euh, masad bu nekk ci bunt bi masad bi mi dafa mel ni comme saaru pédar yooyu ñu daan euh, defar di ko taal xam nga am na benn euh, wëñ buy génn ni ci bitti wëñ boobu boo ko taalee gis nga ni muy def fat fat fat fat fat ba egg ci pédar bi rek pédar bi daal di déclenché wu la même chose xablu boobu noonu nag matière boobu lay am masad mooy matière toxique la boo xam ne bi su ko dara laalee rek bu na fat fat fat ba egg ci euh, buntu bomb bi rek éclaté éclaté daal di tàkk kon fii jii di ha ci biir euh, tomb yooyu ci biiru virus yooyu am na ci place boo xam ne bi place bu sensible la boo xam ne am na fa benn euh, buum bu ñu fas fas bu dëgër wala boog saañ bu ñu tëj tëj bu dëgër boo xam ne bii am na fa benn matière boo xam ne bii dañ koo liggéey euh, liggéey toxique boo xam ne bii su ko dara laale luy tàkk rek dafay infidia dafay explosé wu daal di tàkk alak yëpp alak lépp kon nag laboratoire am boobu noonu muy defar ak euh, muy euh, imraa boobu xam na daf koo yenn xam maalatul xat daf koo yenn xatab bi mooy yu bon yi muy defar yépp te yu bon yooyu muy defar yooyu yépp nag am na matière bu nekk ci biir yu bon yooyu nga xam ne matière boobu su ko dara laalee rek dafay laa wu daa di e, lépp daa di daa di explosé bu boobaa nag matériel yépp dana yàqu moom ci boppam dana yàquwaale bu ko defee mu alak alalam alak ko dootul mu jóge fa loru comme ni mu daan loree jaamu yàlla yi kon loolu mooy wam na atku xammaalatal bi fii jii jiidiha xablum min masad saar wi nag nekk saar woo xam ne saar wu raglu la woo xam ne bi euh, sama mbokk wala fii sax dañ daan ragal di ko jàng guddi di ko jàng guddi ndax euh, xaw koo ragal waaye effectivement saar woowu noonu la mel gis nga falaqeeg naas niñ lay musalee ci boo ko gëmee ci bépp loraange boo xam ne bii gisuloo ko war a jëm ci yow tabbat yadaa bi noonu la la mën a musi gi musalee bépp loraange boo xam ne bii dangaa jàkkaarloog moom wala danger boo xam ne bii dafa ñëw brusquement nga jàkkaarloog moom bett la noonu la la ci mën a musalee tey boo gisoon tey koo xam ne ki dafay ñëw di la agresser exemple ñëw rek bett la rek yore ay ngànnaayam daanu si xam nga kooku bett na la ex gis nga kooku bu ñëwee nga jàkkaarloo yow rek nga kii ko commencé tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sa yasla naaran zaata lahab wa amraatuhu xammalat alxatab fii jiidiha xablu min masad gis nga léemu boobu nga koy léemu dafay paralyser ay cëram comme ni nga xam ne noonu la saar bi amee maanaam paralysé ki nga xam ne moo daan def lu bon waaye nag gëm la laaj gëm gëm la laaj gëm gëm la laaj wóolu la laaj alxuraan lépp ngi ci kon mbokk yi li mooy saraw sootul masat eh, ci dégg-dégg bi nga xam ne moom na ci am ak maanaa yu mu ko indil te dara génn ci luxal arabiyam te gis nañ ne boo xam xam-xam yi laa même chose noonu lañ daan def dañu ñëw jël aaya daanañ jël aaya sax di ko tawilee loo xam ne sax daane ko luxa bi ak lañ ko kiyee amul alaaxa luxa bi yéen sax waaye dañ koy am benn alaaxa maana bi yan ñu indi ko boo ñëwee ak Ibnu Abbas ci tafasir na ci su ñëwee ne anzala min as-samaai maan fasalat awdiyatun bi qadariha jël ma na ma bi mooy alquran firee ko alquran awdiya ah, mu firee ko xol ay xulub ah. xam nga loolu amuñ ci waaye gis na nag ci maanaa bi ci loxo doo ko mën a dégg waaye ci maanaa bi da nga am dégg-dégg bi mu ñëwee na yuxyil arda baada mawtiha ah. euh, ne yuxyil xulub ah euh, baada dalaaliha xam nga loxo ween du dox waaye maanaa bi mën na ñëw wala boog mu ne yuxyil xulub euh, yuxyil uqul ala bil ilmi aussi loxo lugawiyan du ñëw mais maanaa mën na ñëw ah wala yuxyi al insan baada baada mawtiha yooyu noonu la mu fassiruna yi daan def te mu nekk loo xam ne lii lu nangu woon na nangul leen ko léegi nag <laughs> bu beneen mu euh, koo xam ne ki dafa ñëw am yëg-yëgam indi loo xam ne lii tim naku ñu njëkk ñu daan defee noonu la koy defee mais ci beneen méthode nga euh, bëgg ko jëlee beneen côté te pourtant li ngay bañ mooy li nga nangu woon ñu jiitu woon kon ñu ngi jéggalu ñëpp ci leen baalu xaq asalaamaaleykum wa rahmatullah